réglementation du am ci secteur boulangerie bi mu une euh, réglementation bu ñu mettre en place depuis décembre 2019 donc euh, comment nañu mise en œuvre bi mais rek ñu bëgg gëna acteurs yi ndax sanction sanctions euh, waye waaye tamit fexe ba acteur bi mu xam lan la yoon tek ci ci ci kawam mo bala nga sanctionné donc lolo waral vraiment rencontre bi mu rencontre boo nañ projet bi nga xamante ne jaay mburu mois de ramadan am luñ ci acquis mais am bu mu laaj implication aussi boulanger yi donc looloo waral rencontre tey bi plateforme bi nga daan pour euh, projet boobu donc loolu yëpp moo waral waxtaanu tey bi xam nga tex bi boo ko liiree tex bi nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee tey ji terewul boutique jaay mburu lu ko tere moom mooy jaay mburu ci biir boutique bi ba pare amul nit koo xamante ne moom mu ngi moom moo moom la ñu féetewee mburu mi ndax li ñuy bañ moom mooy ngay jaay euh, ngay jaay yeneen produit ba pare jëla mburu directement mais li ñu demandé texte bi dafa ne boutique yi nga xamante ne amuñu Euh, aménagement spécifique ak personnel d'appoint ñoom la ñu jaay mburu donc ñoom obligation bi peser sur boutique yi moom mooy fexe ba nga am aménagement spécifique am nit ko xamantene mom nga fétalé mburu mi ba paré nak digënté ñaari boutique yu jaay mburu mu am une distance de de 300 de 300 mètres donc loolu la réglementation wax mais réglementation waxul catégoriquement ben boutique mënul jaay message bobu c'est pour la population ñu japp ni dafa dog tey ñu arrêté di dem ci boutique yi di gis ñu leen di livrer mburu ci ay conditions yu hygiénique ñu def ko loolu nak ñu ni kon nak sagam ñun ñoo diggé wax nit ñi toog leen ñu def leen ñu jox leen mburu bu baax kon nak jaadu na ñu am programme bu melni bu ministère xalaat ni projet jaay ma mburu loolu sagam amna ñu ni kon bu ngeen toogee ñu livrer leen ci mburu anam set même auto yi koy livrer décret bi daf leen wax chat yi ngeen ko def pousse pousse du livrer kenn du jël mbuus di livrer kenn du def dara loolu moo tax ñu ni kon